donc day ñëw toog sama wet waxtaan ak man muy selbe mën na yegg si toogandi soxna selbe xam naa yëkkati la ci <laughs> waaw waaw mbaa bu baax soxna si donc c'est très important Selbé Ndom ñëw na yegg si ñu wax ne fi mu nekk nii yegg si gi mu yegg si maa ngi la doon tooñ démb na la nag ma fanaanoo <laughs> donc euh, yàlla baax na donc euh, très rapidement ñu ñu fexe mu toogandi waaw. ñëw ne ci la Gazette en huit cent million en fumée. Euh, c'est à la une de Tchernolon ni toute implication, crise scolaire, une équation encore insoluble. Euh, donc y a un conflit d'intérêt autour de la gazette, hein, euh, le malaise jeune avec vieux Savané, édito. Euh, des rapports de la CENTIF sont introuvables. Aminata Touré, ministre de la Justice, euh, moom moo wax lu ñu mel les rapports euh, li nga xam ne moo di CENTIF rapports yi am na yoo xam ne réer na de réer yëpp nag dañ ko génne donc c'est très important. Euh, li nga xam ne wax na ko euh, ki nga xam ne moo di Aminata Touré mais rapport yëpp la ñuy càmbar ko bu baax jox ko ñi nga xam ne blanchir xaalis lañ fi nekkoon ñu teg leen euh, li nga xam ne moo di lii nga xam ne moo di yoon. fi mu nekk nii nag duñ def lu dul fi mu nekk nii dalal sunu gan gi mu di Soxna selbe Selbé da nga tardé wala lan moo la dot da ngaa sonn autoroute bi rek. autoroute bi eh, moo amoon gàllankoor. moo amoon gàllankoor maa ngi ciy jégalu bu baax. waaw waaw am naa mbégte nag di la fi dalal tamit man mi man mii ma am mbégte toog ak yow waxtaan waxtaan ak yow. waaw maa ngi lay ziar. nga nuyoog suñu mbokku téléspectateurs yi. waaw euh, man day maa ngi nuy waa àdduna bi yëpp sax laay wax. Mhm. ndax ndax euh, fépp lañ ko seet. macha allah alhamdulilah alamin dañuy gën a sant yàlla rek jul si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di leen gërëm bu baax ci invitation bi. parce que mhm. yëg-yëg la daal. yëg la macha allah. di nuyu askan wi yëpp nag. yëkkati la jafe na de yow. ah déedéet jafewul. <laughs> jafewul ah non jafewul. ah isa di nga am jot bi sax. waaw xam nga il faut nga bàyyi dara pour mën a def dara. loolu la mais jaami yàlla yaa ngi may xaar. Uh-huh. Euh, ñi toog di ma xaar tamit maa leen di jéggalu. waaw ndax euh, buñ ma gisee xam naa dinañ xam ne dinañ xam li tax sama. Uh-huh. tardé tey daal boo xam ne tardé naa ko te maa ngi leen ko leen ko ne dama am benn invitation 2STV yi. Uh-huh. maa ngi leen di jéggalu may leen ma rek am na ñoo xam ne ñu ngi may xaar. am na ñoo xam ne tam tey suba teel ñëwoon nañu. après dama leen retourné maa ngi ci jéggalu. wax man lan moo ma jaaxal. Mm. <laughs> seet gi nan la la dikkee. Hmm, hmm, seet bi gis gi ni ngay gis. dafay leer nañ. waa loolu ci yàlla la rek. du man yàlla moo ko def man sax xaw ma ko parce que du loo xam ne dama koy laaj. barke ah. laa ilaaha illallaah du loo xam ne dama koy laaj. mooy ñëw waxal la. mooy ñëw won ma li may won su ma xëyee ah ne ah man de gis naa nangam ci kattanu yàlla. mais du loo xam ne man maay koy wër wala maa koy laaj wax dëgg yàlla xaw ma fu mu nekk ci man sax. Mhm. waaw su nekkee dëgg rek nga bëgg a dégg te yàlla rek tax. lu tax nga def ay lu tax ñu lay wooyee Yaay Fall nga def ay njañ. <laughs> loolu loolu dara dafa dafa jot rek pour ñu def ko ndax dañ doon teg ay greffage ak yëpp mais bi mu jotee lañ bu ñu amee ndigal lañ ko def. kan moo la jox ndigal googu. ah ah, ah loolu si loolu secret la <laughs> loolu secret la. Eh. Ah, mais dama doon teg greffage macha allah dina ma doon def moom da nga doon defar ba mu baax. waaw ba mu baax ba mu baax. <laughs> léegi mais lii moo gën daal. Mhm. waaw moo ma gën a. waaw booy jàpp mun a yegg bu baax parce que dama lay dégg sa kàddu gu wax li ma jaaxal mooy danga nga lool diine. waaw parce que mu njëkk muy mujj. boo tiitee sax yàlla ngay tudd. xëy na boo kontaanee am na benn côté boo xam ne doo ci wax yàlla waaye boo tiitee foog nga wax kon balaa ngaa dem bay kontaan wala ngay tiit xamal ki nga xam ne moo bind ba pare. nga xam ne moom moo la may ngay wax kooku nga xam ne moom moo may ma mën a xool ba xamee pab Alé ak yére bi mu sol. balaa maa wax ak kenn naa ko xam ba ba xam delloo ko njukkal gën koo sant. lu may wax dinaa ko ci boole man bu ma fakk taloo sax allah laay wax bu may signé allah laay signé parce que moo nekk ci man moom laa sentir. <laughs> léegi làmb ji moom toj nga ko te dégg naa nga ne dootoo ci waxati. Euh, man buñ ma mayoon rek buñ ma mayoon rek comprendre ma ne man nit kese la. taalibe Serigne Touba laa taalibe Seydil Hadj tariqa yëpp seen taalibe laa xale bu ndaw sax taalibeem laa ndax ku laa aw ma benn problème. Mhm. su nekkoon xamee nañ ko noonu xam ne sama tànk mësta dugg biir ci làmb ji. aw ma maqaama ci ok ba mhm. aw ma maqaama même bu ma ci faralee kenn nit man. ni ma koy waxee rek innahu iza arada shay'an an yaqulahu kun fayakun mhm. yàlla mooy dogal man su ma bëggee te yàlla bëggul bu fekkonte ne lu waaye bëgg rek mu am kenn du xëccoog moom. waaye kon maay nekk directeur directrice de 2STV mais borom moo ko moom. moo tax mu nekk directeur bi. Mhm. bu fekkoonte ne lu waaye bëgg rek mu am. Mhm. kon tey jii ka nga faral mooy gagné mais man du problème boobu li ma gis rek laa wax dugguma ci biir arène bi ne kii jàppal jàpp loxo Pape Alé. Mhm. ne ko dóora ci tonton nga dóor ko. mais da ngeen war a doonante ba ngeen doonante ma ko fekkee. Mhm. waaw man li ma yàlla woon rek laa mën a wax ne lii kat laa gis ci kattanu yàlla. mais toj nga làmb ji moom. ah déedéet tojuma ko. ah xam nga ma ne toj nga li li nga li nga wax yëpp am ci làmb ji. waaw parce que man dama bëgg ci kattanu yàlla mi nga xam ne moo may may moo ma may lii te du téere bu ma takk du garab gu ma naan comme ni ma koy waxee. nu ma juddoowee xanaa yére yi may sol. Mhm. rek ci kattanu yàlla moom laa def ci sama yaram wi. dama naan lii yàlla moo ma ko may. ci kattanam tojuma ko parce que ñu ma mayoon saison bu dinaa ko eggalee ci kattanu yàlla bëri yi fi des euh, buñ ma mayoon tamit mën naa ciy wax waaye damay xaw a ragal ndax bi passé dafa xaw a diis ci man. ah danga dégg naa ñu ne dañ la menacé. non dafa am ñu ma woowoon parce que ñu ngi wax naan mbokk Yékini la waaye barke yonent yàlla Muhammad gisuma benn mbokk nii bu ma woo directement menacé ma. Mm-hmm. parce que tamit wax day leer suñ ma woowoon tam dama koy wax. Mm-hmm. wax dëgg yàlla kenn woowuma ci ay xale supporters yi. Euh, am na koo xam ne dafa ma woo ci njëkk ne ma maire ma ne ah mu ne ma affaire bi diis na mère bàyyil wax làmb ma ruus ma ne ko amul benn problème waaye papa man dugguma ci biir làmb ji li ma gis rek laa wax parce que làmb ji ñëwagul. Mhm. li mu ne mère ñun supporter dañoo sonn ma ne ko wax nga dëgg ndax neexut nga préparer sa équipement ak sa t-shirt ak. defal sa yëf ba pare ñëw ñu naan la sa mbër day daanu. loolu neexul mais comprendre leen man yàlla moo ma dugal ci biir mbër yi. Euh, xëy na dama cee waroon wax rek bu fa war a yem aussi dina fi yem mais du man maay def kuy daanu ak ak koo xam ne mooy daan. Mhm. mais est-ce que est-ce que est-ce dina mbër yu lay ñëw ne la seetal ma ci sama làmb. Oh, non non. amagoo ko gisaguma mbër nag mu ñëw na ma seetal. mais mbër mën na yabal. Euh, gisaguma tam mbër boo xam ne yabal na. <laughs> Selma yaa ngi may de. <laughs> waaw léegi yow mais seet gi noonu da nga ko màggaleeg wala. nan fa demee daal. <laughs> dama ko judduwaale. judduwaale. Euh, bi ma nekkee xale sax laa gënoon mën a wax daal léegi maanaam sama vision xaw na wàññeeku parce que dafa ëppoon dafa ëppoon dama wax papa suba lii suba suba lii nii dina am papa mu ne ah ma ko suba lii nii day xew. te su ëllëgee ci kattanu yàlla ni ma ko waxee noonu leen ko gisee du loo xam ne dama faral kii barke ci yàlla Muhammad wala kii wala kii dama ko dogg ci laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah mm-hmm. li ma gis rek laay wax. pour nit ñi comprendre loolu bañ ma ci mere wala ñuy woote ki samay portable ki dagg ay saaga ndax du lu rafet. Mm-hmm. lekkuma avance su mbër mbër mayeguma juróomi dërëm. Hmm? Mm-hmm. kon euh, bu nekkee mbër may na ma ay milliards sax su ma ko faralee te yàlla newul mbër moomu day daan du daan. mais dégg naa nga ne boo gisee Yékini di nga ko wax lu tax mu daanu. ci kàttanu yàlla parce que li ma mën a wax ci Yékini lu gën a tuuti mooy taalibe Seydi Hadji Malick la kooku mën naa ko wax mhm. ki des bu ma jàkkaarloog moom dinaa ko wax ci kàttanu yàlla di nga ko ko wax incha allah tax mu daal sooba yàlla ci kàttanu yàlla mais xale bii di Balla Gaye moom ku doy waar la moom waaw Balla day moom ah, ba ba koy dalee gis nag dafay yàgg mhm. waxuma ko pour may ma xaalis mhm. waxuma ko pour mu may ma kër waxuma ko pour mu may ma oto dama ko dogg ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ba ma dalee gis Balla Gaye yàgg na mm-hmm. loxo ya ko samp gis naa ko muy benn macha allahu loxo yu dëgër la de waaw macha allah macha <laughs> allah alhamdulilah eh, sant yàlla la ndax euh, innahu daal ni koy waxee isa arada shay'an an yaqulu mhm. kun fayakun yàlla mooy seet ki ko neex mu tànn ko def ko parce que réew mi nekkul euh, Ablaye Wade moomu sa nekk président de la république am na ñeneen ñu ko fi jiitu ba keneen ba keneen yow dafa mel ni demam da nga ko gisoon yàgg na loolu am na deux ans et nañ dem ci mbër bi ba pare. waa ay ca ñëw tey am nga gan comme ni ma ko waxee. am naa gan kër bu ma dul yàkkale moom te paasam man. <laughs> voilà alhamdulilah. nga ne comme ni ñu ko waxee baal la. waaw. dama ko njëkk a gis ay loxo samp ko mu nekk ndaa bu diis pour sempi dina xaw a garaaw comme ni ma ko gisee yàlla rek nag moo xam. waxuma ko pour faral ko dama ko dogu ci la ilaha illallah muhammadu rasulullah na man loolu loolu laa gis man mhm. waxuma na nag du am ndax yàlla mooy fale mooy folee lu mhm. man maay fale wala may folee su ma doon fal kenn fal sama bopp mhm. mais mënu maa fal sama bopp damay wax mu leer euh, benn bi dama ko gisaat li tax ma dëgg ci ne dina nekk roi des arènes dama gis mu droité benn oto oto bu ndaw ànd ak benn paa bu gàtt bu am béjjaaw léegi droite ñëw fekk pasero bu yàgg fa pënd yàgg fa torop moom ma ne ko kaay mu ne ma meer ma ñëw ci la dugg ci biir oto bi pasero bi arrière ko ba mu set wicc nga xam ne suuf su set mhm. rek moo fa nekk ma ne oh ci kattanu yàlla Balla Gaye mii dina nekk roi des arènes mhm. xam na roi des arènes Balla Gaye moo ko fay dindi ndax pasero bii gaara bu yàgg te Balla Gaye di mbër kon am naa yaakaar ci kattanu yàlla ne mhm. euh, ki nga xam ne mooy toogi roi des arènes Balla Gaye la doon ñu toogaat ay jëmmi jamono yàlla woon ma ko euh, mu toog ci chaise roi des arènes. Mm-hmm. di ma geestu ma ne ah alhamdulilah xam naa ci yaakaar ne um, Balla Gaye dina nekk roi des arènes.